alhamdulillah asalaamaaleykum <coughs> guddi gi daanaka jeex na gannaaw buñ sante yàlla julli ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te bu suñu mu ne na ñaan rek su ko defee ni ko noonu na ma ni ko noonu da ngeen kontaan de <coughs> jo nekku nag gaamu gi mi ngi doog di tàmbali ñu koy dañuy tey gaamu gi de ban ko jàppee ba tey ñu ngi ci gaamu da <coughs> tantal nañ fi yonentu yàlla moom salaay salaam loolu day gaamu la tere nañ fi gën a yonent bi salaay salaam yi loolu gaamu la jokk nañ fi mbokk loolu gaamu la fekkar neen ba xol yu tooy loolu gàmmu la da Seex Murtadaa lu mu fi wax léegi loolu rek gàmmu da doy na rek lu fi xalifa ba wax mi xaadi moom kon kay gàmmu gi jeex na ba pare bàyyi mi ngi tagg yéen te am salaay salaam ci xasida bi nu wan nuuru bachar fil madi xayra mun ko woy woon ci koosi mi ñetti téeméeri bayti ak juróom fukk bayti ak ñetti bayti ma ne gàmmu suñu ko Mawlana Cheikh Ibrahim tënkalu doon nu ko noonu daneen lottu ci gàmmu da ànd ak ba tey lottu nañ ci gàmmu da wante lu mu wax doomam Mawlana alaay bilaay loolu rek doy na dalal ma tiitoon sax du ma tiitee dafa oo doomam alaay na ko na nga préparé suñ gàmmuwaat bi ci coopérative yaa koy gàmmu da fekk baay kon nu nga ko xamee su defee gàmmu gu mag di judd gi ngeen mbëggalem ci yent bi salaay salaam bu deesee nga xam ne senegal loo ne baaxoo daf koy yóbbu coopérative de Mawlana Alaay Bilaa Ñas na ko bàyyi ndax mën naa gàmmam moo ko Alaay Bilaa kanaa ko moo gàmmu du dara lu may tagg yent bi salaay salaam bu ci kanamee ñu way da bàyyi mu ne sax yàlla moo njëkk gàmm ci yent bi salaay salaam yàlla moo rotal laay bi ci dënn yenentu صلى الله عليه وسلم وكل نقص عليك من أنباء رسل ما نسبب فؤادك danaa leen nettali xibaar yi pour mu mën a dëgëral sa ngëm yàlla bàyyi mu ne bu fekkee ne yonentu yàlla ma salaay salaam nu maqaamaam bi toll moom lay yàlla nettali xibaar yi yonent yu ko jiitu woon maanaam la ko dagg ci aadama beneen sabanam mari ma usuma ñun da fa am baaw nabiyina لثبت لا قلوبنا على الإيمان وما جاء به لأننا نعرف يقينا أن الله تعالى عظمه بما لم يعظم به أحدا من خلقه من أنبياء ومرسل وملائكته آه من كمان لولو كمان أنك waaw salaay salaam leer gu la la bàyyi bëgg a nettali ci tënk da mu ne nuuruhu leeram ga awulum wujudan mooy njëlbeen lépp lu am wujudan ci am da fa huwa moom leer googu noonu aslu usoo mooy ci baay waa jaale ak doom doom yeeg baay yëpp leer yonentu yàlla mu salaay sa mooy seen cosaan da a yàlla nag wala yonentu yàlla mu salaay waane kaana laaw wala shay maaw yàlla moo fi nekkoon ba fi dara nekkut Seydina Ali mu nga xam ne yonent bi salaay sa ne caqam na ana medinu te yelmu waliyu babowa man may ngena kam kam seydina ali may buntam ana lan la seydina ali wax wowa an ala kan ba tey yàlla moom moo fi nekk da bàyyi mu ne fodi buñ déggoon lu ni kon seen jàng pare da loo kay jaabir dëggal na ko da seydina ali mu ne yàlla njëkk mi bind dara bind na leer yonente yàlla ma sallallahu alayhi wa sallam mu am juróom benn téeméeri junne ci bàyyi mu ne loolu da nga koo natt la rek boobu guddi amut bëccëg amut jant amut weer amut lu ñuy jëlee eer amut da loo kay jaabir dëggal na ko an jaabir bunu abdullah radiallahu anhu qaala qultu ya rasulullah bi abi anta wa ummi axbirni an awali cheyin xalqallah taala qabla ashyaa قال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل أشياء نور النبي من نوري فجعل ذلك النور يدور بقدرته حيث إن شاء الله ولم يكن في ذلك وات لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنسد جابر من دفتوك ينتي أبو صلى الله عليه وسلم na ko jotee naa sama yaay sama baay waxin la pour nga xamal na ana lan la yàlla njëkk bind da bàyyi mu ne yent bi salaay salaam ci kar saam gu màgg ga mënoon na ko wana sama leer la yàlla njëkk bind da waaw ko loolu sa leer yéenatu la njëkk bind te boobu bind gu malaay ko kur bii na bind gu durut bayda bind gu laway ma fus bind gu xale maam nga da waaw bind gu asamaan waaw bind gu suuf bind gu jant بنو بدودا بنقود آه جا بنقود جنة وبنقود وما عدم هذا تبنى رواية سيدنا علي منه إنهم تيالم الصلاة سموك وانكو كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام ده نكونا دلير ندك يالا دبين درا ددو تبي يالا بفكجنا إني جنا شادا يالا نك جرم كودا يي لموري موري من حضرام سيلبدا يو نكسا جرم كدا كودا يو منشي يودا moo waaw moom nag mu jë waxaahuut laahuut jabru ko naasuut ma ne yow nekki juróomi koodaay mu ci yow rek xanaa danga koo xamul rek sa ñaari loxo mbubu yi sa ñaari tànk tube yi wa sa dënn bi gis nga loolu bu ko indi woon ci mbooloo rek leen nit ci yow dañ da ah yàlla nag juróomi koodaay lu mu réew pay ba mu jëla aawut mu nekk sir yonente yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu jallaaxoot mu nekk ruux yent bi sallallahu alayhi wasallam mu jël jabaroot mu nekk aqal yent bi sallallahu alayhi wasallam mu jal malakoot mu nekk xol yent bi sallallahu alayhi mu jël naasoot mu nekk yaram yent bi sallallahu alayhi wasallam Alxuraan nekk fa di jukkoom da bàyyi mu ne amma aqtaabi ambiyaa yi awliyaa yi yi seen may li muy for for ñu ngi tëbboo ci ruux yenentu yàlla moom sallallahu alayhi wasallam ña ca topp ñu ngi tëbboo ci àqal yonent bi sallallahu alayhi wa mooy sa àqal rabbaani bii nga xam mi nga ànd yow waaw ñu topp ñu ngi tëbboo ci xol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu ci topp ñu ngi tëbboo ci yaram yonent bi sallallahu alayhi mu ne amma siru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu kenn sëggu moom da leer bëgg a bàyyi lala waaw bàyyi da ci xisa bu ah, ne loolu yàlla xam nga dafa waxaw boppam xam nga nit ki sax dafay waxaw boppam da mu ne ko sa xam-xam mu màgg bii sa sañ-sañ bii boo sàkku mineef mu la xam sa xam-xam bi dafay nil da leer gu du doon daw ci pay yàlla ba juróom-benn téeméeri junne caat mu dóor ko na ko nekkal di àq di Muhammadiya dafa mel ne glace gi réformé da ba nga bëggee nji jëriñoo ko da nga ko dugal ci ndox mi paanum ndox bu la neexee bérégoon ndox ñem naan da yàlla noonu la def da ah mu bind seetu nag ba mel ne seen mu teg ko ci kanam gis nga ne ko baa boo ko defalee tarangal mu daal di rus xaqil muhammadiya ba mu jësee boppam mu jës taar yu ko yàlla rangal ah mu daal di eres eres boobu noonu si la yàlla gën a ñàq mu bind ci géej mu abel ngelaw lu ko fóoral fóoral boobu noonu si la bina asamaan ah lam ce fenqee suuf génn ci suuf génn ci da waaw mu bind ci suuf da yàlla bam naree amal leneen nun tuddee lu du yàlla mu daa oo oh, jibril na ko jibril dama indi ma suuf ak ndox da dama ci bind ngirtilu tee ñii dañ may topp ma yóbbu leen aljaan yan ci yàlla boole ñii dañ may may ma yóbbu leen safara yan ci yàlla musal ah jibril daal di wax suuf na ko suñu borom kat moom yónni ci yow mu ne dafa bëgg bind ci yow ngirtilu tee ñii dañ koy topp mu yóbbu leen nii ñii dañ koy mooy mu yóbbu leen safara da suuf na ko ma lee lentulu sa borom mu màgg bul jël mukk ci man ket boo xam ne dañu lam safara ah jibril daal di ñëw wax ko si mborom si suuf wax ko lu mu waxoon jibril mu daal di yónni israfil mu waxoon jibril da mu daal di israil suuf wax ko lu jibril da ah mu ne ko maa ci yàlla mu màgg moomu bul ma tere mukk loo xam ne si borom moom nga sant da mu daal di tubb suuf di yuuxu mu tubb suuf di yuuxu ba mu ñëwee si na ko kaawteef kanaa moom waxu sa mbokk ya mu ne ko dafa maa màggale dafa ma dafa maa lentul sa maagaay ma sa maagaay da na ko kaawteef yem na ma xis bu da képp koo xam ne namu naa de yaa ji naa seen ruux mooy maaliku mu bu leen tiit du jël mukk ruuxu koo moom sax dañu rocc ruuxam da a ba nga xamee loolu xam ne nag da yàlla daal di bind seen maam Adama ba bind seen maam Adama mu digal malaaka yëpp ñu sujoo sujoo sujootal ko da malaaka yi ban sujootee ñi daa di siggi gesoo gis iblis daal di bañ ñu sujoo sujoote ñaareel bi da xam nga sujoot benn la waroon a doo rakka bu nekk benn sëgg siggi kon kay sujjóot benn la waroon doda bàyyi mu na sujjóot bu njëkk bi topp ndigal la sujjóotu ñaareel bi sa sant yàlla da malaaka yi baleen seen borom digalee ñu sujjóotal suñ maam aadama ñi sigi iblis njëkk mi njëkk yàlla di digla malaaka la tuddoon waaw ban see bañ sigee ñu bañ waaw ñu daal di sujjóot sujjóot sant da dafa mel ni waa Thiamène Ndiogo yii oote la la quinze rajab ca Tayba Ñaseen da ah ngeen dem da ba ngeen demee ba Tayba uyu oote boobu ba ngeen ñëwee am ñu nekk ci tund bi daal di bañ da ah ngeen gàmmu gàmmu ñaare bi da sen gàmmu ñaare bi ci càmmeñ njogo fen nuroog sojoota ñaare ba nga xam ne moom la malaaka yi sojoota si maam Adama da nag waaw sallallahu yàlla dàq iblis ci pm da moom la Alxuraan di junj wasxul naa li malaikati tusjudu li aadama fa sajudu illa iblis abba wastakbara wa kaana min alkafirin a daa ci falar càmmoñ bi mu bind ci waaw si maam aadama da daa di wàcce leen ci aljanna ne leen waqul naa ya aadama uskunanta wa zawjaka jannata wa mina zaalimiin da lekk leen lu leen neex waaye garab gi bu ko jege garab gi dañu ci ñëw garab gi del la wala ci maanaam garab mooy shirka da danañ ci ñëw incha allah ah yàlla lu njëkk a amal mooy euh, bisa dimanche da mu daal di jëmba ci garab yi moo tax dimanche di bisa sanc da képp koo xam ne yaa ngi sanc sa kër wala leneen sanc ne euh, sam euh, tàmm nañ ci bisa dimanche da ci altine ga mu bindi biddi wi weer wi jant yi jant bi diggal leen ñu dox da moo tax altine di bisa bu tukkee yonentu yàlla mu salaay salaam altena tamandu di ko buka mo se samne gada ci talata ga mu binde baye mi yi len tur sen deret mo ta talat di besan nampatal wala karafal kepo ko xamne ya nga am koy karafal wala nampatal tamane ci bisab talata da ci alarba ga mu binde geje dehi digal len nan len da mo ta alarba di besan nan safara kep ko xamne ya nga nan safara wala kis tànn nañ ci bisab àllarba da ca alxames ga mu bind aljana xemem loo mboolem kooku gëm yaa ngi ci yàlla boole la bind safara ragal loo mboolem kooku mooy yaa ci yàlla musal da moo tax alxames di bisab ñaan yàlla da ci àjjuma ga kon nu ko nettali woon mu bind suñu maam Adama waaw ci fallari càmmoñ gi ci saa su mujj ga mu benn seen maam awaa may kuuda moo tax ajjuma di bisab takk sëy képp koo xam ne yaa ngi takk sëy taamu nañ ci bisab ajjuma da ci samedi ga bindu dara ah yexoo ni ne yàlla dafa sonn ah dafa liggéey semaine bi juróom benn fan ci ñaareelu fan bi mu sonn noppalu ñoom de tànn neen bisase bu yàlla noppalu woon bàyyi mu ne danoo reer rek njëkk yàlla di amal dara ana ñoom fu newoon da yàlla kay lu mu njëkk def moo gën a jafe foofu lu mujj a def da doomi aadama yi kay lay jàngal waaw xam ne ne sa kër sax doo ko sanc ci benn yoon tey nga ranselé waaw lu war a nekk ci waañ ba ala nga ranselé lu nekk ci war a nekk feneen ba mat da yàlla xam ne ne bàyyi mu ne yàlla ñun lay jàngal da xam ne ne àddina bi ñun doomi aadama yi ñoo koy dëkkee da waaw baay mu ne képp koo xam ne gis nga mbiram gaaw waaw na tidd képp koo xam ne gis nga mbiram yee na sant yàlla da mu ne gaaw mi ngi jóge ko ci seytaane waaw yeex mi ngi jóge ko ci yàlla da ci xel kay gaaw moo waroon jóge ko ci yàlla yàlla moo gën a gaaw lépp waaye jóge ko ci di jooy di jooy jooy na ko yow yàlla bis bu nekk am na loo ci amal ba man manda ah yàlla na suñu borom na ko noppil da kon day képp ku dox aaji boo xam du mooy yàlla ci bésab samedi yàlla dana ko fay da ah, leer googu la la bàyyi bëgg a wax nag moo tax mu ne nuuru leeram ga awulun wujjoodan mooy njël benn lépp la am wujjoodan ci am da fa huwa moom leer googu noonu aslul usul mooy cosaani bàyyi waa am jaale ak doom yi yàlla mu ngi leen nettali leer ak yonent bi salaay salaam war a jóge ko ci pay yàlla ba war a ci naasu da wala war a jóge ko ci pay yàlla ba war a wàcc ci jëmm ñaari way juróom wala war a jóge ko ci pay ba war a wàcc ci jëmm moom muhammad sallallahu alayhi wa da moo tax mu ne lam yazal musa dañ nuuru leeram ga baxey ni laay ci watay yàlla sama fi intiqaali ci toxalu fi kaw ni ci mbindee fi badi intiqaali gannaaw toxalu da yàlla nag leere yonente yàlla sallallahu alayhi sallam dañu du ko mi jaar ci ndigam góor gu laab ba ci ruux manam ju laab maanaam la ko dagg ci adama ba ci abdullah ak ko dag ci hawa ba ci aminata da yonent yàlla mu salaa ana qiyar min qiyari man may kun to kay ci lun to kay ci lun tan da kep ko xamne ba nga arab ta nga bëgg arab da kep ko xamne ba nga arab ma tàng bañ arab da mu ya ne yàlla moo bind mbindeef yëpp tan ci adama mu tànn ci aadama bani kinaanata mu tànn ci bani kinaanata waaw arab mu tànn ci arab qurayshi mu tànn ci bani hashim mu tànn mi ci man maay kun tànn tukkee ci lun tànn tukkee ci lun tànn da mu ne tànn na arab mooy mooy làkki ñoon aljanna ci aljanna tànn na arab mooy way yàlla bàyyi mu ne ñun tam tànn ne arab mooy wax suñu yonentu yàlla moom da lu ñu wax indépendance ku ne wa sayfi inn sayfi ci yaman moo ko njëkk am da mu de waa màkk yëpp ñu ñëw da fekk moom jàngu na waaw téere njëkk yi da bam na surtout Abdou mu gis na leere yonente yàlla ma salaay salaam mi ngi ci kanamam nga da lépp lu mu ni may moom daf koy fëlal ci misaal su mayee gars yi ñaar fukk de moom lay ñaar fukk ñeen fukk la koy may da su mayee gars yi mi ñeen fukk moom téeméer la koy may da ah bañ jëkkee bee waaji dem mu ne ko kaay ma dee la da am nga jabar mu ko dee da uma jabar da mu ko soo demee nanga nga takk ci beneen suuratun soo amee doom ji mat a takk jabar na nga ko takkal ci beneen suuratun da sa loxo ndeyjoor gis naa ci buwa mooy yenentu sa loxo cam càmmoñ naa ci nguur da waa loolu yëpp jigéen ñu dëkk ci beneen suuratun waaw ñoo koy jur de ah ba muy dem mbokkam naa ko sandaf daal di wër ko Abdou Moutalib lu ne buur bi gën a la seen kaw de moo ne métti de lépp loo xam ne mu ngi ne koy may yow yaa ñoo fi bokk ñëw mu ne leen moom boo leen yëgoon la ma nëbbal la ma mbóota la moo ma gënal foofu la ma feeña la da la ma feeña la du dara yëfi àddina la da ah ba nga xamee ne loolu xamee na nag waaw ba ñëwee nag mu daal daf def lu ko buur bi waxoon mu daal di takk xaalatunda a moo tax mu ne lam yasal musa dañ nuuru leeram ga daa ni ilaay ci watay yàlla sama fi intixaali ci taxalu fi kaw ni ci mbinee fi ba di intixaal gannaaw da summa atta allah topp mu wàcci addiyaa leer ga wa tëjjlaa mu feeñ nuuru leeram ga fi abdoulaye ci abdoulaye ali aji kawe da a bàyyi mu ne abdoulaye min ni jantam njooloo ci màkka da jigéen ñi daal du ko war rek ay tëdda man benn yoon ma jox la téeméeri gëlëm yun la jote woon da mu amal xaraamu fa ma maatu duunuwu wa hillu laa la fastabinuwu wal uru yaxmi yirdu wa diinuwu fa kayfa bi amri si tabqinuwu da daf lu xaraam dee sax moomu ko gën da gorsan naka lee dafay lu xaraam da ah Abdullah xam na ne jigéen ñi sonal na ko te moom nit la rek Mawlana Cheikh Ibrahim mu ne képp yaa xeeb jigéen wala Mawlana Cheikh Ibra mu ne bàyyam maam El Hadj Abdoulaye Niass moo ko wax ne ko képp koo xam ne xeeb nga jigéen yaa xeeb jigéen da waaye yàlla moom xeebu jigéen da yàlla takk na xare ngir ñaari jigéen sayda Absudu doome Seydina Umar bun Xataab la ak sayda Aïcha waaw doomi si naa Babacar la da ñoom ñaari ñëpp soxna yonent bi salaay salaam da yàlla takk na xare ngir ñaari jigéen ñooñu wa in tazaara alayhi fa inna allah huwa al mawla wa jibrilu wa saalihu muminin wa malaikatu bada zaaka sayer da takk naa xare ngir ñaari jigéen man yàlla da jibril dana ñëw mikail dana ñëw israfil dana ñëw israel dana ñëw juli ñoomee dimbale man man man yàlla ma maay seen raab bi maa koy jiite da baay mu ne pexem seytaane lu muy kawe kawe ina kayda seytaane kaana dayfa laa ko la wax da waaw ba mu ñëwee ci pexem jigéen ina kayda ko azim pexem jigéen moom màgg da bàyyi mu ne jigéen boo leen saakoo yàlla mën na la musa ci ñoom waaye ñoom bu saako saakoo nga mucc ci ñoom jafe na kon kay yàlla na yàlla musa seen pexe da ah ba nga xamee ne loolu xew na nag sallallahu alayhi wa sallam da abdallah nag ba mu ci bàyyam na ko bàyyi takkal ma jabar jigéen ñi sonal nay ma da baayam daal di takkal ko Aminata bintu wax bi ci weer rajab ci fukki fan ak juróom ya boobu Aminata mi ngi am fukki at juróom-ñett Abdullah mi ngi am ñaar fukki at a ci guddee alxames bam demee tëddam moom ba pare waaw ci weer rajab ma ne nag weer rajab mbir mu màgg màgg la ci xissa bu gudd rajab bu arab di waxee bu arab bu rajib mooy mbir mu sooti da mooy weer mu màgg ma ne ci weer rajab ne wala dafa am ñeenti weer yoo xam ne ci njël benn lislaam ba ci jamono tey gi danoo xaramal ku ci xare tabaski digg tabaski tabaski atam karit ñetti weer yëpp danoo toppalante weer rajab rek moom moo ci beru da moo tax ñu naan ko rajab fardi da moo tax xam naa ne xaati yàlla mu ngi koy préparé fardu jaami bu nga xam ne moo ci war a juddu dañu ci ñëw incha allah da ma ne weer rajab sene may abdullah aminata mu ëmb ci loolu ci weer rajab la da ma ne ci weer rajab gannaaw bu mu amee ñaa fukki fan a juróom-ñaar si neen rañaane yonentu yàlla ma salaay salaam mu dem ba passé kaw ñëwaat ci lu matu mi ne ini julli da loolu ci weere rajab la da ma ne ci weer rajab gannaaw buñ yónnee yonent bi salaay ba mu am juróomi at la gàddaay gàddaay gu njëkk jëm Abacha moom demu toon waa Seydina Usmaan ak Jafar Tayyaar dinañ ci ñëw incha allah la da mane ne ci weer rajab gannaaw bu yent bi sallallahu alayhi di jublu ci baytu muqaddas si la jibril wàccee na ko suñu boro na nga na jublu ci kaaba ga loolu ci weer rajab la da ma ci weer rajab gannaaw bu amee fukki fana ak ñett si la seydna ali karamallahu ci màkka da ci weer rajab la da ci weer rajab gannaaw bu amee fukki fan ak ci bisa alxames ci gannaaw tàkkusaan fi la fardu jaamu juddu ca tay bi ñu loolu ci weeru rajab la da ma ne ci weeru rajab gannaaw bu mu amee fukki fan ak juróom ci bésal samedi gannaaw bi mi di passé si la Mawlana Alaa Ibrahima Niass génn àddina ci London kon koy weeru rajab weer wu màgg la da moo tax mu ne suma ataala topp mu wàcci addiya leer ga watta jëla mu feeñ nuuru leeram ga fi Abdoulaye ci Abdoulaye aliya ji kawe da achaqadu sopp na ko nisaawu jigéen ña يبسل نيغي جوهي ان والا سن على لو نيال كو مالي باي نغير تارم غوا جما عرفت باي مو حالي نك من قال من اما الحرام دا دفلو حرام فموت دي اولا موكو غنسا من حرام تو كاي دفلو حرام ما قالو اهل كمال مو واخ ني ماني دا باي من اهل كمال ني ماني اير بوني اوي جلو سوف رك nga jëf ñu duma yugo da bay mu ne lu doon jigeene ut yëpp ak duma tëleb la ko waaw abdullah la ko yàlla may da moo tax mu ne atafa may na laaw yàlla waslu ab jokku binta waa doomi jigéen waxab waa a manqué ndokkelam ndokkel laa ñeel ko bi la jokkoo da mu ne lu doon jigéen ñu ut yëpp aminata binta waa bi la ko binta waa bi abdallah bam demee tëdd binta waa ba pare mu daal ñëw ci jigéen bu ne wa fatima yuhuriya bokkoon ci ñu ko doo woon ak kaay tëdd man benn yoon ma jox la téeméeri gëlëm mi la joto woon mu ne ko sori ma man ne ku ma jigéen ju bon da leer gu ma gisoon ci yow gisutuma ko ci yow da xam naa ne tëdd ngaa sama morom da moo tax baay mu ne doon jigéen ñuy ut yëpp Aminata bint Wahbi la ko yàlla may da bàyyi mu ne doom ja gañe na baay ba doom ja gañe na baay ba doom ja gañe na baay ba da Abdou Moutalib su njortoo woon ne ku muy takkal doom ja Abdallah mooy jur yent bi salaay salaam boppam la koy takkal da xam naa ne dafa jàpp ne yëf yi ci mag la la xaalatun ak aminatu ñoo bokk ndeye baay mu jël tu takkal ko boppam nguuru daw la ba ne abbas bu ko doon buur bi wax foofu la jógee koo da baay mu ne doom ja na baay ba doom ja gañe na baay ba doom ja gañe na baay ba kenn du moom da moo tax mu ne xadaat fa xadaat fa may na allahu yàlla waslu ab jokku binta waa bi doomi jigéen waa waa ne ma kenn dokaam dokoy laa ñeel ko bisaak bisa bi la jokkoo da baay mu ne kam attada bu ko dikkalee bashair way bigli ye waaye moom ubla aje ëmb la bi rasuli yent bi sallallahu alayhi wasallam yaxlu dana kawe li ahlal maali gën kawe mbiri kawe da ku kawe ci mbiri kawe dëgg-dëgg mooy aminata bintu waabi mu ne diiral juróom-ñeenti weer yu ma am yent yaa sallallahu alayhi wasallam weer wu dee dana am ku ko ci pay yàlla ba lu ko ci aadama benn sabana ma rema dama bégal da weer wu njëkk ba waaw Adama na ñëw na dama ah, Aminata bégal yaa ngi am ko nga xam ne mooy sang way njëkk way mujj da weeru ñaareel ba waaw si sa doomam ñëw na Aminata bégal yaa ngi am ko nga xam ne mooy borom Ramuda weeru ñetteel ba yonentu yàlla moo ñëw na weeru ñeenteel ba Idrissa ñëw na weeru juróomeel ba Ismaïl ñëw na weeru juróom-benneel ba waaw Moussa ñëw na weeru juróom-ñaareel ba. ibrahima ñëw na weeru juróom-ñetteel ba yusuf ñëw na weeru juróom-ñeenteel ba sabana mariama ñëw na moo tax bàyyi mu ne kam attada bëri na bu nga ko dëkkalee bashari way bëgg li ya way moom aminata ubla aje amula bi rasuli yent bi kawe di àllan maa gën saa kawe mbiri kawe ku kawe ci mbiri kawe dëgg-dëgg mooy aminata da bàyyi wax li nag mu ne na sawa waxtum saxee fi bat naa ci biirandayam qadara shahrayni ci nattalee ñaari weer tawalla gañaas loo baayam ba al mu fadaa katakuñ jote woon xaalis njugu seeg la abdallah ba bintu Wahab ba mu ëmbee yonent bi salaat ma am ñaari weer abdallah na maa ngi dem Sham commerçant yi da lu ñu wax mat su la dëkkee waaw sama baay Abdou Moutalib na ko gaaw yi mu daal di dem minute mun war daal di siyaari ay ndigaam feebar dabee mu daal di dee da bàyyi mu ne xaati xam ne ne doomam ji foofu la waree gàddaay jëm mu dem jiitu jiitu fa da moo tax mu ne na sawa watum saxee fi bat naa ci biiram ndeyam xadara shoxren ci nattalay ñaari weer tawaa la gaañe af loo bàyyam almu fadda kata ko jete won kala jegu seegada abdoullah mu juttu won temire gëlem lala bëgg wada bàyyi wax li nag mu ne wa badda feeñ na ak durata tomb ba alyetim bayaji foor us na taar wa maa yit may jirim fi roqal baali aji feew ci ku fecc ci xol dëgg mooy aminata da mu ne daama sax na xamlu haadi mbiime mooy yéenantu bi shuhuran ay weer xakka waa boo xam ne nettali na ko ti sata juróom-ñeenti weer lan tas si yëgul loolu ñeeku bi si a dèjà Aminata bintu Wahab mu ne déere juróom-ñeenti weer yu ma ëmb yénte ama salaay san yëguma dara loo xam ne jigéen ji wér dina ko yëg da sama yaram tàngu da sama biir yëkkatiwu da leena la laa fëkk sama bopp mbërë bu ma jusut añuy juge ko ci pay yàlla ba la ka dagg ci aadama baye sabana mari ma damay da moo tax bàyyi mën a daama sànna xam lu haadi mbii ma may yénant bi sooron weer hakka waa boo xam ne nettali na ko te saatan juróom-ñeenti weer lan tax si yëguma dara loo ñeel ko bi saxal diis baatatan ci mbeeteel bi tawaali ci taftaloo da waa todo dikk na xawaa bi lu way foriya umu insa mooy merem da suma hasiyatu hasiyatu bindu nusan jabari ferona ata dikana lina lingir fargole maygada watawa dikana amla kumala akiya suma tadala topu yoru nuru kullu nujumi lera bepu bidu lima fdal baje ganda yalla digal malaka yep ne sapu sen chener ci bir makada safa bintu of yaay abdurrahman ibn of no korabo muhammad juddo fam tok sama fam tok ci maka la jaza tahirumida waaw ma nga xamee ne loolu kan laay dara na ñi ngi ñu laay bàyyi na ko fooy juddoo ñu ne wala ñu laay bàyyi na ko fan la juddoo bàyyi na wa daat am na ñu wax ne mi ngi juddoo fi daari ibnu yusuf ci daari ibnu yusuf mu ne am ñu waa ran mi ran mi mu ne juddoo wut mu ne juddoo wut daari ibnu yusuf juddoo ran mi da fan la juddoo kon Cheikh Ibrahima mu ne Cheikh Ali da yàlla dafa bëgg yent bi sallallahu san wasallam beram chevalier la mën a juddoo da ah ndeysaan mu ga mu gaaw nëbbu mboon ma ngir sa feewu boppam mu ne xaw lu jullu rijaal yi eh, lépp ci waxi góor yi fekk moom moo ko wax waa màkk yëpp naan lu xew lu xew leer gi fan la bàyyee ko bàyyi mu ne nuura shamsi leer ak jant la tabasaxat fenk na ina shamsi musafa naka jant yonent bi salaay salaam chacha tasaane zalaam dalaay la na ma réer ku tasaare la na ma réer mooy yonent bi salaay salaam da ah koro aminata bintu wax bi indi na doom joo xam ne imran loton na prix nu tam da ah soo ma mayee tuuti rek nga dellu ma boo ma joxee sa nopp bi ma mariam doom jum indi ku ko gën war ngaa xam ne kooku kenn la da mariam imran xaanatu bint fawqa daa mooy yaayam da am na juróom-ñetti fukk at mun ta am doom la imran am na téeméeri at ak ñaar fukk mënut a am doom da ndeysaan benn bés Haanata bint Fawqada daal di tukki coono coono jàpp ko mu indal ci garab ba mu indalee ci garab ndeysaan mu gis benn picc bi compte doom mu ne cey kaa yàlla may na ko doom da man day bu ma yàlla mayoon doom du ci am solo mukk dama koy jébal bayt muqaddis da a ah, ba mu ñëwee te dëgg ah, eh, Imraan da yàlla nangu ñaanam ba mu ko weesanee waaw mu falama wadaxata qaalat rabbi inni wadaata unza wa ahlu bima wadaat wala zakara kulunza wa inni samaytuha maryama wa inni unza bika wa zuriyataha min ar-rajim fataqabbala rabbuha biqubuli ahsani wa ambata nabata nasana wa kafala zikriyahu kulama daqala alayha zikra mihrab wajada indaha risqa mu ne yàlla may na ma doom jigéen la baay mu ne kanaa yàlla mu ko may moo ko gën a xam da mu ñaan yàlla yàlla musa mu ne ah jigéen a góor benn la da na baax rek mu ñaan yàlla yàlla musa ko ci seytaane yàlla musa ko ci seytaane da ba mu demee ba faram soow mu ne mi ngi mootali ni seega da mu dem jébal ko mu muqaddis ñëpp di xëccoo mereem ngir taaram dafa rafetoon da ñu ne léegi képp ku sànni sa bant bam samp ci yolo ordon bi yaa koy yar da ñëpp sànni mu daanu Sakariya sama da sànni mu samp da bàyyi mu ne yàlla du jum da Sakariya mooy armanteem moom rek moo ko mu dugal ko ci benn pantere pantere yi nekk ci jàkk jàkk foofu la jógee koo da ah bu newee jotee su ñëwee fekk fi menget ak waa noor da bu noor jotee su ñëwee fekk fi menget ak newat su ne ko Mariama ani la من إن الله يرفع من يشاب قرين زار ده يا الله مي ورسقال تا يا الله بي ورسقال دوكو سيد الإرد ا بندم بام فكاتا جروميات مداجي جسم برك مدادي جن بام جن رك ا دجي جبريل بام دجي جبريل جبريل سوبيكو امباني دادي دجي مبكالال من وقالت اني اعوذ برحمن منك ان كنت تقيادا سو ragal nga yàlla bu ma laal da su fekkee ne yaay taqi bi ndogaali jigéen bu ma laal da mu ne ko xaalat wala xaala innama ana rasul rabbika laa beliku xulaaman zakiya yàlla moo ma ebal pour moom may la doom da mu ne ko kaw teef man góor musuma laal naka laa amee doon te au moins da ah ba mu demee dugg ci duus bi ba mu génnee rek ah mu daal di koy ci lu matu mi da fuqaa yi ne juróom-ñaari weer la kombu ñu ne juróom-ñeenti weer bàyyi ne déedéet da mu ne faaw fa fajaatu gi arab du ko utilisé mukk lu may teew fa xamalatu fan tabasa bii faa jaal maqaadu ba muy dugg ba muy génn lu matu miw rek lu matu mi ni rek mu ngi leew doom gi da ah mbokk mi war ko naka yaa uxtaaru na maa kaana abu kim raasawi wa maa kaana umu ko beqi yaada yow mbokk ma aaronu bi sa yaay musa sa baay musa njaaloo baay mu ne kanaa wax فأشارت لي مجني قيبة مجني قلبي ده آه يدلون قالوا كيف نكلم من كان في مادي سبي هذا كينا قمنا فرقون كو من يتوي قب نك نك نني وحي موم مريم داد ولا إن سبنا مريم داد سكون دكو تلو بي آيام نقال إني عبد الله آتني كتابي وجعلني نبيا وجعلني مباركا حينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت يا وبرم بوالدتي باي من أمو باي موتا ولم يجلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبث أيا دادي تدد من يالا مينكم موتي بام جدو يان يعني نكو يالا ميدا يالا مينكم موتي بام دي يان يعني نكو يالا ميدا يالا مينكم موتي تم بام ديكي dégg nag moo am solo yan ñu ko yàlla may waaw du loolu da xamane saban mariama ñett mucc yu mu wax mucc na ci baaru yent bi salaay salaam mucc na ci baaru Seex Ahmed Tijaan mucc na ci baaru Mawlana Cheikh Ibrahim da daal di tëddaat bàyyi mu ne noo koy denlee kii nga xam ne yàlla dafa opere ci jëmbaxi yaayam yent bi salaay salaam juddu wi ku ñu doom juddoo da doom bi juddu bopp lee jiital da xaaliban bu jiitalee tànk dafay dee da doom bi juddu dafay indaale àndaale assez ëmb lu mel ne deret yéen bi saa ba muy juddu moom parfum la génnee da dafa jiital tànkam rak ci peelu ros sujjoot na allahu akbar allahu akbar allahuma rafiqa allah da yàlla may yàlla boobal ci saati saati si kawe si la bàyyi mu ku kawe lu kawer lay ñaan da moom la bàyyi bëgg nettali mu ne marhaban maa ngi lay yaal ay yaal bi rabbi ci rabbi awal fii ci moom rabbi awal ataana moo ni inil musafal xalqi kuntaani ci mbinee fi wow moom xad mu risaali moom moo tali yéen tii da yéen bi salaay salaam moom bara mi juddu defal nañ ko lépp nit bu juddoo lu ngi koy defal moom defal nañ ko bara mi juddu yàlla bugg koo bokkoo kenn dafa bëgg a méngoo mbiram yàlla na yàlla méngoo si mbir da moo tax baay mu ne woo moom yonent bi salaay salaam maqatu suratin dagg nañ jëmbaxam woo moom yonent bi salaay salaam maxtuunu lakkal nañ ko day nu diw nañ njeñem akrim o nama agi tedd be seeneri yàlla ci tara góori da mu ne ama to ene nen ko am laa ko malaayka ye naxu jinaani cewaala aljanna wa bihaarin ak géej yi wa baaduru ñu gaaw indi ko fi ali ci teew da ñu ne jël leen ko jël leen ko waral leen moom aljanna ndax mu te ah, dëkkaale da waral leen moom jeeri ji waaw mu wàccee ndox mu tedda wëralee moom géej gi ndax xeetam mu ci ci lab da ah Aminata bint Wahb ba mu ñëwee fu mu ko tër da mu daal di wax way jigéen mu ne cey ba ne Hachim ñoo saagan sa saagan ne rek ba sama doom ji sànko da bàyyi mu ne ko yaa réere sa doom sa doom du ko sànk mu ko lu koy sàmm du yow da moo tax mu ne amal tu en ne ko am laa ko malaaka ya naxu jinaan ci wàlla aljanna wa biyaare ak géej yi wa baaduru ñu gaaw indi ko fi ali teew da fa tabadat feeñ na anwaaru leeram ya wa anaar mu leer busra goxi busra goxi màkk yëpp leer fa yàlla jamaale oona ma tarlum ñeel ko da yenentu yàlla mu salaay salaam koroo bam juddoo taa kisra bi dafa toj kisra andu shirwaan buur bu màndu woon la de ci jamonoom la yéen bi saa sam juddu da benn bi dafay tukki mu romb benn tooli sardin tooli orange mu fekk fa borom wala gardien ba mu ne ko jox ma benn doomu mos mu mos mu bëri ndox lool neex lool mu ne ko joxaa ma beneen doom mu joxaa ko beneen doom mu bëri ndox lool neex lool da mu wàcc xelam na tool bi dama kaa war a nangu da jox ma beneen doom mu jox ko beneen doom mu mu ne ko joxaa ma beneen doom mu jox ko beneen doom mu mel ni doom bu njëkk ba da mu ne ko ñaari doom yu njëkk yi yow moom mas ak ñaari doom yi ñoo bokk même meññat mu ne ko waaw même garab moom moo lay meññ da mu ne ko ñaari doom yu njëkk yi dafa neex lool bari ndox lool ñaari doom yi forox lool a ah, waaye ji tontu ko ne ko xam naa ne buur bi dafa indi jàng ci xolam mu daal di tuub mu ne ko jox ma beneen doom mu jox ko beneen doom mu neex da Kisra anu mi génn àddina dafa bind wasiye bàyyi ko ci warandem bi ne bu génnee àddina balaa ñu koy rob képp koo xam ne amal na ko bor na nga ko fayal la képp koo xam ne yoroon na ko xaax na nga ko fayal la bàyyi mu ne wër neen am yëpp ba bés bu mu dee si amul kenn koo xam ne yoroon na ko bor da te boobu lislaam ñëwagut xam nga foofu la maandu em da bàyyi mu ne maandu yent bi saa sa moom lay dëggal da Kisra anu Shirwan moom nag koro ba mu génnee àddina paleem bi dafa toj fukki toj toj ñeent xootee ku fa da fekk mu bisaan mooy xaadu xudaati seen làkk mooy précon général da dafa tëdd guddi yi ba mu guddi mu jël fukki gëlëm omat fukki naaru góor omat ay gëlëm yuqus bi ci géeje dex la tëgga da ba eewa wax ko buur bi buur bi dëgg la gisaane kat yëpp nee bu ma kenn wax lii moo waral lii lii moo waral li de ku may wax lu nekk sama xel maanaam yaman mu oo Abdou Machi na ko waral fekk nga dem Sénégal waxal mu ko da asamun am yasmu xatiri fi yaman Abdou Machi ala shati wa qad ashfa أرسلك ملك بني ساسانة ارتجاس إيواني وقمود النيراني ورؤيا المبزان يا عبد مشي إذا كثر التلاوة وزار الزايب حراوة وفاد وادي السماوات وقاد بحيرة الساوات وقمد نار فارس فليس سام لشتو شاما يملك منه ملوك ملك على دي شرقات وكل ما وهات آت ملكو Abdou Messi kan moo la yónni anoonu chinois mu nga xam ne paleem mbotoñ na safara sa fay jéem da ndox mu niis na ak gént gu nga xam ne moom la mu bisaan gént da ñëwa nga ci seti mu nga xam ne mu ci lalab dee da heure boo déggee ñu ne jàng Alxuraan xew na ci màgg nga gis waa ji di téye et na nga xam ne chettiwu jotatoo caam dara caam jotatu chettiwu dara waaye kon limi limi xooteeg da ngeen ko toog da ah daal di dee ba mu ñëwee wax ko buur bi buur bi ne a ah, lu koy ko fukki fukki at ak ñeent la lu koy oma amu du problème da boobu bàyyi mu ne benn at ci ñoom juróomi téeméeri at la waaye ñoom ñëpp dee ci déré fukki at bi moo jëm naa ci ñeenti at yi su neen jàppoon yos jur danañ ci ak allah Seydina Omar Soraqatu ba muy topp yent bi salaay salaam ca gàddaay ga ba ko yent bi saa san daytu la ñetteelu yoon dafa Soraqatu nooy dafa bis bu nga xam ne sama moomeet buñ jàppee ano charwan bu nekkoon ca Iraq ba jël kaalam ga dëppal la ko jël jël mbaxanaam ma solal la ko kaalam gi kaalal la ko bu baa looy wax da mu ko kisra urus mu ko urus tiggi moom laa wax moom la laa bàyyi bëgg a nettali nag moo tax mu ne wata daa tammaamu iwaani kisra iwaani kisra su ma tawaala topp mu toftaloo fii ci moom busra way bëgli fal kufri éeféer yi baa di insisaal yi aji fay nañ ci suufi da séeféer yi éeféer yëpp ci suufi nañ buur bu buur tëdd ci lalam rek nda salam daanu da bàyyi mu ne kuy foli buur bi mooy ñëw da anu sharwaan boobu bàyyi dem nafa fa da bàyyi mu ne boo gisee taax mu am na junne at musu mijji soo demee ba gis lu ko toj nga xam ne léegi kawtif bu jógee ko ci yàlla la moom la way ci seeru xal iwaani kisra al dahaak wa ansara buruusi nabi inna kisra taqaxara ak kisra anu shirwana ja muhammadun bi ayati kubra wa qasru absara ak kisra anu shirwana ja muhammadun wa alqata anhaara amhal tafajara ak kisra anu shirwana ja muhammadun wa halqat attaak mu mukabara أكثرا أنو شروان جاء محمد يرات الذكر منذر مبشرا مواتمنا رجم ثانينا أرجم بدو يسمى فوفلة كل رجيمي باب السيطان بجمبرو هالا مرقام وقتون إيغا يالو أول نمكو من كمال مدى ينونتو يا الله صلى الله عليه وسلم لاتمي نيو جني دان دون تغلانتي ci asamaan si asamaan si njëkk am na fu ñu wax bayta en siti mu nekk sambale boo xam ne lépp lu war a xew ci an mi foofu la kay di waxtaanee nawet dana am wala nawet du am waaw wala dégg dafay bëri da jën yi dañ doon teglante ku mujj su fi déggee benn benn dëgg yokk ci fukki fen da ko doon jox seen xarit ñi ñi da loolu nen doon wax boaba bàyyi mu ne koro ba yéen bi saasam juddoo loolu amutut ay seytaan yi di nattaral moo fi am moytu ko xees ki moytu ko gàtt ki moytu ko njog di yàq moom lay Alxuraan di junj ci sooratu jinni jinni ne wa annaa kunnaa naquudu minhaa maqaa'ida lis-sam'i faman yastami' aana yajid shihaaba rasadaa moo tax mu ne rajma saani ne aruj mu biddiw ya sama fufule kullu rajimi bépp seytaane ba aji mbaru haala marqa waxtu ma yegee yàlla oon na ma ka min madda naaru fursin safara faris ba anhaarum seen dex fi qumuudi aji nekk ci jëm la bàyyi mu mu dellu ci naaru ga wa inqitaaxu yu daga dagal sawnde ga tax maal wu dis dooteeku mu dellu ci xuyuunu ga da fursu fursi lala buur yi asnaawum seen xaram ya fi jufal aji nekk ci jattu la ñu doon garde gëlëm xaram yi na ko seen xaram yi jattu na da waaw ñu doon garde safara sa ñëw na ko seen safara sa jéem na da ñu doon garde bu yota sarwaan ndox man na ko si ndox ma ñis na da wa inji daal ñiy dagante yaxru boo xam ne boobu dana gaar bu xëy di inji daale gannaaw dagante da ñëpp naan mbir xew na mbir xew na bàyyi mu ne mawlidu juddu la xayara gëlëmal na alxuqula xel bii ci moom iraas ay fondation la lin Moustapha ñee yent bi salaay salaam jësi lin nawaali aji bëri ci may la baay mu ne buséeri ba mu ñëwee fii dafa wane mujj sa la bàyyi na bàyyi na dangaa da ngaa juum la mooy mujj sa gannaaw buñ maftuwaal yi lu muy feeñal loolu mooy mujj sa da la mooy karaama wala la mooy mujj sa gannaaw buñ yónee yenuntu lu muy feeñal loolu mooy mujj sa la mooy karama gannaaw bu maftuwaali wali yàlla lu mu feeñal loolu mooy karama da bàyyi mu ne lii bu séri ngaa yàkkamte da lii dara xewgu lii juddu la rek moo tax bàyyi ne mawlidu juddu la xayara gëlëm na alxuqule xele bii ci moom iraasu ay fondation la leen Mustafa ñeel yéntu bi salaay sallam jësee leen na waali aji bëri ci may la da bàyyi wax li nag mu ne marhaban maa yaab ay yaal kullu marhabin bépp yaal bil muqafa aji xencu marhaban maa ngi koy yaal ab yaal bi juud aji tabe saqiyu aji tabe mehtaala aji tabe bàyyi tafanu la daf ci arab da baat bu nekk mën na saa indi firi yu bëri juudi tabelee firi saqiyu tabelee firi mehtaal itam tabelee firi da bàyyi mu ne wa an niyaan maa ngi koy ndookal ab ndookal ay den atti li bintali waa bi doomi jigéen waxab da anjaba wesina bi xa bi xitaami ke motali yénunti saafi xusu sulaali ka aji sell ci ndoxam bengal da ku se sol ku sell ci ndoxam bengal mooy aminata bintu waabida bu ko bis pee ci jotee bàyyi mu ne képp koo xam ne am nga doom joo xam ne wàllu yàlla danga koy tuturoo képp koo ne am nga doom joo xam ne waaw borom xam-xam ne koo xam ne am nga doom joo xam ne yonentu yàlla la danga koy tuturoo bu ñëpp tuturoo ba pare Aminata Bintu Wahab daal di jug sama kanam ngeen di tiitaroo kanaa xamul ne maa jur sang way njëkk way mujj bàyyi na ko gaña nga da moo tama ma ne sabaka jiitu na fi faqaari ci puukraa ko kullu fataati bépp jànq an jaba na bi duri ursu duru duru bi al yatimi kay ji foor alqaali kay ji seer gaama ren gaamu kafaara laa ko tuddee am ñaari at yoo xam ne corona daf ñu sonal fa suñu xam xamal corona na ko dun perte ci yonent bi salaay salaam yonent bi salaam bàyyi mu ngi lay nettali nàmpal ga da koro bam juddoo aminatu yaayam moo ko njëkk a nàmpal yi jëlee ci amaatu amaanatu bi firi kóllëre ak iman bi firi ngëm yàlla da Suhaybatu nàmpal na ko jébére abi laxalu woon yi jëlee ci sawaab bi firi bi yoolab yàlla da amma ku ko nàmpal ba mu ferem soow mooy alimata saade ji jëlee ca saxdu bi firi am na ñetti jànq yu ko nàmpal cun maaka ku nekk xaati ko tollu tudd da bàyyi mu ne jànq bu ko jox weenam rek bu tamee rek ngir taaram soow génn da mu ne yenunte Muhammad salaay salaam moom rak moo nàmp soowab jànq da haatikatu yu haatikatu yooyu nag boo ma delloo a ma wax la ko da haatikatu bint hilaal ak haatikatu bint awqas ak haatikatu bint murada soo demee ci kële nii salma bàyyi mi ngi tawasul ci ñoom ngir mbëggalam ci yonent bi salaay salaam bi aqiqa fansur daari an mutashabisan bi asiyaala xayra xalqi nay laxawaati kii da kenn moom ci bëgg yonent bi salaay salaam dëkkee na yonent bi salaay salaam mboor bu nekk rek mu ne yow yonent bi salaay salaam sa daraja aji jëfandikoo ku nga xam dafa soxla ndimbal kooku mooy kan kooku nga xam ne moo jëfandikoo ci jànq doomi jànq ji la ci doomi jànq kooku mooy Haatikatu bint Hilaal ak Haatikatu bint Aqwas ak Haatikatu bint Moroda koro bi yent bi saa sam juddoo fukki doom yu góor juddu nañ ci Màkka da bàyyi mu ne yent bi sallallahu alayhi wasallam koro bam juddoo leer dafa jóge ko ca xaqaram bu tedd ba dugg ci këri Màkka da fépp foo ne leer duggoon na fa waaw saaba juddoon na fa da bàyyi mu ne xaati ñu ngi koy saaba da Mawlana Cheikh Ibrahim tamit koroo ba mu juddoo leer dafa dugg ci kër yi fépp xam ne leer duggoon na fa rek waaw saaba Mawlana Cheikh Ibrahim génn na man maa ko wax yonentu yàlla ma salaay salaam nag an mu jafe la juddu atam beekoor da bokk na ci aada waaye Màkka ñoom amoon neen dëkk bu ne wax Taayif da mu ngi dena Màkka moom dafa bëri meññet dafa sedd da foofu na doom baaxee di manta seen doom di nampal seen doom da waa Taayif tamit yëg ne Màkka am na ay jigéen yu fi wésin ñi daa di ñëw bañ eh, jël doom yi am baay yëpp bu nekkii kan la ana baayam ñu na Aminata ne man de ba ma amee sama doom ji ba mu amee ñaari weer ci biiram ndeyam la baayam dee da ñu ne ñun ñun day bëgguñ jël doom joo xam ne amu bàyyi da ñun dañoo bëgg yaayam di ni fay baayam di ni buuñaa da ah ñi jël doom yu am baay yëpp daal di dem da Alimata Saadiya moom a jëkkëram abo kapseti ñoo fi yoroo benn mbaam mbaam boo xam ne mënut a jot da bañ ñëwee ñi fekk ñi jël doom yu nga xam ne am neen baay da bàyyi baay Muhammad da am na ñu ne ba ñëwee di laajte ñu ne ko ah, doom yi day jeex na da waaye seen dëkkandoo seen dëkkandoo bee dend ñun moom am na doom da ah ba ñëwee laajte ko aminat na am naa doom da waa doom jum bañ laa am da ah mu ne ko man day rus naa man it yóbbu doom jo sama mbokk yi yóbbu ay xale te man ma kenn mu ne ko bu la gërëmee dama ci nebbe mu ngi mu ci lal ba da mu dem muri ko moom it bi salaay salaam leer juge ko ci gémmiñ gu tedd ga dem bu ci pëj ne bu mu ne bëpp gaaw tëjaa ko da daal di génn na ko kaay jox sa doom ñemu mu ko da mu daal di jël ko ba mu ko jëlee jox ko mu sopp ko lool mu jox ko wenn ndey bi mu nàmp ba suur mu jox ko wenn càmmoñ bi mu daal di bañ mu nax ba sonn mu bañ da bay mu ne xaati mi ngi samp màndu da xam na ne kii di nàmp kii di nàmpal am na beneen doom bu bàyyi bu mu bàyyi ci kër ga su nàmpee benn ween bu ku nekk ci kër ga du amul kum nàmpal da man day waxuma loolu da bàyyi dafa nëbb mboon mi da yonent bi salaay salaam loolu firi loolu firi loolu firi saayir la da yonent salaay salaam ween bu mu nàmp mooy sharia boobu la am droit joxe da beneen ween bu ku ko war a ko mooy Ibrahima mooy fayda bi ah, mu teg ko ci mbaam mi mbaam mi suur ba am ni baajo boo demee ci am séye ba bu séyéro mi ngi wax gëlëm la baay mu ne dafa juum da danoo ànd ak gëlëm nga kankoon kon kankoon bàyyi moo moo moom moo nekkoon ko doon nàmpal da lu mu ko mën a xamee da su na moom fuqaayo le ne wàññi xam da wante Bichri dafa juum moom ci borom xam-xam dëgg-dëgg mooy mu nekkoon ko doon nàmpal da alhamdulilah ah ba mu ko tege ci fas gëlëm gi wala mbaami mi sobe am enne bajuda ñi dàq nag ñi ngi jëm taayif da alimatu mbokkam yu nga xam ne ñoo ko njëkk a xëy ñoom ñëpp mu ropp leen ñu ne ah alimatu saadiya yow day tey dëkkee nga mbir da yow sànq tey suba mënoo jot tey nga raw nu ñu ñëpp mu ne ah lii la ne si lii la ma seen borom cëralee da mu ne ko ah sa xët a gëtu gëtu gu neex gi nag mu ne ah man day lii duma ci dara sama borom moo ma ko jaglee da ah bam ñëwee ci ëllëg sa waa Taayif yi mu naan gëtt gi kan moo ko fi xeeñee ñu ko jërëmi wala mbinee fi almi saade bi la da ah ci jamono noor la boo léegi waaw saamu alimata saadi dam saami suñ demee fekk fa ñax mu tooy ah bu ëllëgee dëkkandoo alimata saadi wax seen yi ne dam leen fa doon alimata saadi di saamu waaw suñ demee duñ fa jël dara da yéen du bi salaay nag moom bokkut ak nuy doom yi di màggee da lii doom ji màgg ci at moom la doom màgg ci weer da ba mu amee ñaari weer moom mi ngi ram da ba mu amee ñeenti weer moom mi ngi yàngaar ba mu amee juróomi weer moom mi ngi dox da bam mu amee juróom weer moom mi ngi wax da bam mu amee juróom weer si la doon wax ana afasu kullu mën na xut bi daat da képp koo xam ne yaa ngi wax luxa arabiya maa la gën a fasaada maa ngi juddoo ci si naan eh, ci bani saad da ba mu amee fukki weer foofu xambaane tëf fa rek mu sànni fa bu fa sànnee mu mu mu mu àgg fa da a ba mu amee ñaari at nampal gi daal di jeex da ñu ne ah ñu dem delloo yu ko ah, ban demee alimati saad yi ne lu mu waxante woon jeex na waa suñu sañoo nga bàyyi nu ko da fii dafa tàng naka jekk ijaas moom dafa tàng da ah am ah, Aminata bint Wahb na ko gannaaw yéen a ma bëgg seen yéen ma yéen a gën a bëgg sama doom kon yee jël leen da ba mu amee ñaari at ñaari weer mu ànd ak saami dem saami da bàyyi mu ne xale bu am ñaari at ñaari weer di sàmm kooku ci Muhammad ma ku njëkk gisee da ah ba mu demee Jibril Jibril Mikaay Israfil soppeeku ay tëll narmal xale dàqale ñoom ñëpp daal di jël Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di tar ko waaw opéré da jël xol bi lumbu seytaane bu nekkoon ci moom ñi raase ko waa sam-sam kasee ko ay leer jibril ne na ngeen ko peese fukki góor ñu peese ko fukki góor mu lënga leen ñu ne indi leen téeméer mu lënga leen da ñu ne bu nga ko bu ko peese woon mboolem mbindee fii mu lënga leen da ñu daal di kase waa ko bàyyi mu ne yonentu yàlla ma salaay salaam seytaane moom tuum da mu ne nit ku nekk am na malaak bu lay digal lu baax ay seytaana bu lay digal lu bon da waaye yonent bi salaay salaam seytaaneem su ko mënoon ko jéemoon sax ko mën da lot ni ci da ah ba sàmm yi ñëwee waa almasaade ne ñun day neen waa suñ xale Quraysh bi moom te lii yàpp neen ko da ah ñu daal di juuti ko sedda moom a jëkkëram suñ tuuti ñu gis Muhammad Muhammad lan la dara loo gis dara kanam gaa ngi am ay tikki tikki da ah alimata saade na kii nan dam delloo doole ju ko yaayam bara lay ñàngal dina fi fekk da ah ban demee delloo ju ko da mu ne ah lu tax ngeen delloo sama doom ñu ko wax ah, di sa doom rek mu ne ah da ngeen ma wax lu tax da yéen ñaari weer ci gannaaw nangu loo nu taaxaloo moom tey ngeen bëgg a taaxaloo moom ñu ah, sa doom dina jàpp ko da bàyyi mu ne a réer sama doom sama doom sa sa doom dina du ko jàpp nampal boobu la la bàyyi bëgg a nettali da mu ne wa abbatu bañ na ko maraati way nàmpal ya xun na ñu wane lu yut ngir jirim da baay mu ne ayut mi ndax jirim yusri daf na xeeb ko di diru laali jirim boo xam bu ko bu ko lëngalee mboorum urus yi mu balancé leen ndax jirim boobu jar na xeeb ah, jirim boobu kay jaru xeeb da mu ne ardaxatu nàmpal na ko fataatu sax di jàqa saat sax di li saadi ñeel taxe sayda taxe ne be ay si ci dundu alqadidi be ay ginna ta ataali ka ay gi topp ma da kam atatu bari na bu mu ko dëkkalee bi ataani wajini mbaam bati ati be ji yéex xataatu topp mu dikkal da su mara topp mu gontu da sa baaxati di jiitaaw kon li jamaali ñeer gëlëm saadi sànq suba da mun ta da waaye ñoom ñëpp ra leen da mu ne asbaat xëy na قاتل المسادية جيا عندي أجي قيف سما عندي أجي مرضى تمارا طب مغنتو بأك ذاك على آلي سفان يولم بردا المد سادية دا نكم دمو دا مو غنى نياكل چه طايف واتي نكم تيموم مو غنى كومل چه ماكا آه، دا باي مو وحلينك من بركات النبي بركة ينتبه صلى الله عليه وسلم أرقاد يولنا حليها تكو المد سادية فقد قينا قسمنا تانغ فادو إمالي ke aji gàcce beekoor da bàyyi mu ne ku gàcce beekoor mooy yonentu yàlla mu salaay salaam bàyyi wax li nag mu ne rabbi yow sim borom bil Mustafa ci barke yonent bi salaay salaam aljawaadi kay gi tabe fa daari ki yàlla nga jotaa day sa dund xabara boo xam ne fandoon na watu si yàlla nga seela baali ko sama rabbi yow sama borom bil Mustafa ci barke yonent bi salaay salaam ala tuufi kay aji ñëwante konda fa hab yàlla nga ma may lii ñeel ma junata pakk an same ihda wali fete ko fete kon noonu axtaali wa rayada ah mu toftal ci xott bu xott dana bi salaay san da bàyyi mu ne ndeysaan mu ne koroog ba mu yëgee bu yëgoon xotti dënn bu ñu doon xotti dënn yenentu yàlla moom salaay salaam dana jël dënnam ak dana bàyyi dënn taali bi yëpp jotee ko dënn yenentu bi salaay salaam métti boobu yenentu bi salaay salaam war a am bu mu ko amati da moo tax mu ne chaque xott dina jibri jibri sadru dinam wa fi daaw sadri jote naa ko dënn minu tukkee ci moom abaay wayu moo def wayu moo tax mu def abaay waa abaay la mu ne abaay ànd ak bàyyi maay anjale doomi da chaqu xoot neen dënam su ma chaqu topp ñu xooti su ma aden topp ba badaa sene ganaa xooti yu njëkk ya chaqu yu xoot neen ko bi intiqaale yi ci lun tànn wane xoot neen dënam ba muy nàmp da xoot neen dënam ba mu amee fukki at ak juróom bañ mu jaar ci waxambaane wax ne na xot ne dënam koro bañ koy reŋaane xot ne dënam koro ba ñuy wàcce ci moom Alxuraan bàyyi mu ne loolu yëpp jentu la na mën naa am da bàyyi mu ne nett la xoot ak nag bàyyi mu ne woo xoot googu baaru erfaane géej xam yàlla suq moom ne bëgg mu waame allah adi ci suuf da kanaa kay moom moo ko war a maame waame waame da wala kenn lu fi nekk xamoo gumba ne ñoom fuqaay wa samoo tax ne ñoom effeer yi foofu ñoom fi dalaali aji nekk leen ci réer de waa caaw ñu feesal ko bi ma acaaw lañ fa feesal xamu ko xoolu mu batal ci xam-xam da waa caaw ñu feesal ko bi xamante bi hikmati xam-xam wa qisaale ak jukki ju rafet da mu tënkal la yonentu yàlla mu salaay salaam da bam amee ñaari weer wala ban ban ko ëmbee bam am ñaari weer la bàyyim dee da ba mu amee juróom benn at la yaayam deeda moom la la bàyyi bëgg a nettali nag moo tax mu ne ami sitt ba ame juróom benn at gannaaw bu mu juddoo ba am juróom benn at min umri ci dundam maatita la dee umu yaayam lisan faridan ka aji wéet baa di mu feeñ na ba xeeri misaalu doo benn misaal da foofu moom yonent bi salaay salaam baax dallaay gannaaw yàlla al jalilu ka aji màgg jalilu xadari moo màgg dara da wax fa na nga melal baay bàyyi na a daan na nga bàyyi maqaala dalaay wax yi ñu reeni da mu ne gannaaw boo waxee ne gannaaw bu yàlla passé yonent bi salaay salam moo màgg dara la bu wax lu insa nit insa yi waxoon insa yàlla yàlla la da bàyyi mu ne gannaaw boo waxee ne yonent du yàlla maqaama boo jox yonent bi salaay salaam repassé na foofu da wante tamit gannaaw boo waxee ne tamit bàyyi du yàlla du yonantu maqaama boo jox allah ibrahima ñes baas na foofu da moo tax mu ne foofu moom baadalaay gannaaw yàlla ak jëliili yàlla mais aji màgg ku màgg daraja jëleelu xadri moo màgg daraja mooy yonent bi salaay salaam war sax bàyyi mu ne na nga lii da da bàyyil maqaala dalay waxi ñu réer ni na waaye aji wér la fi saati ci ji moom loo ñeel ko wa sifaatu ak meloom wa fi'aale ak jëfam da moom yonent bi salaay salaam waaye mawlaaw borom bi xaawi jëlaale moo làq maagaay ku làq maagaay dëgg mooy yonent bi salaay salaam yonent yàlla ma salaay salaam njëkk yàlla du ko bind la ko dagg ci aadama bayen sabu na mariama daf leen oo nee leen kaa leen jaayante man da yonent bu nga xam ne moo tax ma bind leen yonent bu nga xam ne moo tax ma leen waaw ahmad lay tudd ci kaw muhammad lay tudd ci suuf waaw xeetam ñooy hamad yu ni ñoom bu ñu lekkee dañuy sant yàlla bu naanee dañuy sant yàlla su naamee naqar dañ koy sant yàlla bàyyi mu ne amu ku kenn ku jugóogo ci pay yàlla ba lu may rek wax nee la na wa mubashiran bi rusuli yaati min badi ismu ismu ahmada di leen koy wàcci wax yu utee qaala aqaratum wa aqastum ala dalikum isiri qaalu aqrana qaalu fashhad wa ana maakum min ashahidin yàlla siñeen loolu la ñoom ñëpp a nga xam dafa mel ni rek nu ko bàyyi nettalee ministre bi ñëw place sangam wala président bi ñëw place sangam dañuy énoncé rek ne mi ngi ñëw mi ngi ñëw de jël na sëñ maayi ba muy ñëw wax ne mi ngi toll naanga mi ngi toll naanga ba muy accident yonent bi sallallahu alayhi wa amul kenn ku jugóo ci pay yàlla ba lu may rek wax ne la wa mubashiran bi rasuli yaati min bani la bàyyi bëgg a nag mu ne basharan bilaa di nabiyun turan مثل موسى الكلم بعد بسالي والصبور لذاك إنجيل إذا زران باسمي وبرسالي وبارق ليتون أي رواق وماس ماس هاتم للجمال منحمنا وامتيا قاتم أسماء وطا في كتب دون مهالي ومقيم مختار يروي أهدو عرفوا من قبل هذا الجدال ثم أهل الكتاب أفضل بقي نوره ومثل شمس الزوالي أبدا إبراهيم وذاك بيرا ثم نصرا أبدي على الجمال نهم عبد الله فتا ابن سلام ومقيركم في مارسالي بقلو قول الله باي بقى تنقل من بشرة بقلنا بلادي چي يننت بي صلى الله عليه وسلم نبينا يننت تران لني بولي مثل موسى كمن يننت بي صلى الله عليه وسلم الكلمة كأجي وحي يالا بادي بسالي كأجي فانشي جامبار ده موسى مونغا قنا مقام منت باسي وحي يالا bégle na ci da wa subura ak teera daawa da bégle na bégle na ci da li zaaka injil inza ak injil inza bégle na ci da sara hóoral na bismi turam wa biir saale ak yónni da wow moom albaaraq liitu am na ñu ko tuddee baaraq liitu hay firneen ko ruu xaq muy ruu dëgg wow moom maas maasun haaw haatim haatim am na ñu ko lil jamaali ngir taaramu da mun am nañu ko tuddee mun xamina wa imtiya ak imtiya xaatimu asmaaw taa kii mottali turi yonent bi fi kutubi ci turi téere yi duunu muwaali walis benn njoome da wa muqimu saxal neen al muxtaar muxtaar yurwa solof neen ahid foodi seen wala ahid ahid arfa xam neen ko min qable asa jadaal njëkk boobu la dagante da suma ahlu kitaab topp ahlu kitaab moom a faw nga ba nëbb neen li baqi ngir bew ngir xañaan waa bàyyi mu ne nuuru leeram nga wow moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam misla shamsi zawal kam jantam njolorda abada bana habron fode sen wazakno bahira bahira bahira moom ba yent bi sallallahu alayhi wasallam koro ba abi talib da koy yóbbu eh, sham bahira moom bég la noonu da waaw suma nasura nasura da danañ ci ñëw ñëw da yenentu yàlla mu sallallahu koro bam demee sham ci commerce xajoto bi da dafa ñëw ci garab gi mayuñ ko da xam ngay jaas bëriwu garab amu beru garab gi ñëw fekk ko fa da a nasraane kee day xooma kan waa ab yenentu yàlla waa Iisa bna Maryam waxoon na ne yenentu bu nga xam moo mujj ci yenent yi waaw foofu lay toog mu ne abda nga na yàllal jamaali ool na ma bila tarda naam baax na abdoulaye fata salaam wa mu xayruqu mu fi ma arsaali moo waj wadam loolu saa saay si da salaam kon nu ko nettali woon yahud yëpp xamoon ne ne waaw Màkka lay juddoo nguuram dana feeñee Sham dana gàddaay dem Medina Munawwara da ñoom ñëm ñi jiitu ko fa da koro ba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee ku ne wax Abdoulaye Fata ibnu Salaam dafa wane maa ngi dam laaj ko kawteef su ma tontee ma gëm ko su ma tontu ma duma ko gëm da ba mu ñëwee lu suttu xaqar mi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah ñu ne yow laajoo ko kawteef di mun na xaqaram mbii du xaqarami seen gàdda kamaa yarifuna abnaahum kii nu ma wéré ne yéen a suñu doom yu jural suñu bopp sax suñu doom yu góor wéré wu mu ko de ah Abdoulaye Fatah ibn Salaam gannaaw bu mu tuubee mu waay yonentu yàlla mu salaay salaam na ko nëbbu ma te nga laa yahud yëpp man maay kan ci ñoom da ah yonent bi salaay salaam dëgg la yahud laay leen na yéen la tax gëmulee ma ah, laa gëm da sa téere suñu téere moo njëkk waaw. waaw sa téere suñu yonentu moo njëkk sa moo la njëkk da kan mooy Abdoulaye Fattah l'islam ci yéen kooku baayam moo gën a xam tawre ci ñun moo gën a xam tawre ci ñun da ah yonent bi saa sa ne su ma gëmee nag kooku gëm la kooku bu gëmee ñun ñoom gëm la yonent bi saa daal di ubbi bint bu mun a tëll ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mu ne moo gën a yées ci ñun baayam moo gën a yées ci ñun da Abdoulaye Fattah ibn Salam ne suñ moom njëkkoon na gis nun mujj wax moom ne ni wax da moo tax mu ne naam baax na abdoulaye fatta kay waxambaane góor bu tabe ba waaw mu ne naam na abdoulaye fatta bu góor bu tabe ba mu xëyru na ko mu xëyru mu fi ma arsaali kooku moo wedam loolu saa saay sada ah ba nga xamee ne loolu xew na nag sallallahu alayhi wa sallam diine lislaam gii nañ ci jàpp bàyyi mu ne diine gii yàlla indi amoon na da yàlla daf ko dàgg ba ndàgg ba bees mu teg ko ci loxo yi bi sallallahu moo tax bàyyi diine ko loolu la bëgg a indi nag mu ne jaa dikk na bi samaati ci diine hanifa ba aji sell bayda ba aji weex diine ibrahima sin diine maam ibrahima aljidi siqaali moom ne ndàgg ba mu bees johaako yi jokko bi salay sanda mano kuɓel idiyani jekki dini gi di ñëw hama matle nen dalala rerda lay se tadiri denge kam mu haram lo haram min halaci lolo daganda bobu aggine ci reer ñoom efeeri da ngay gis ni koo xam ne bu fekkee ne borom barke ngee da ngay ñëw ci benn gàdd nga fee jigéen bu la nee nga tëdda moom bu ëllëgee nga ñëwaat doom yooyu noonu gannaaw am nga alal nga tànn ku la neex rek yaa ngi da nga yóbbu doom jógi da xam nga foofu loon daf em da moo ta mu ne arafu xam neen su ma badduloo topp ñu witee bàyyi mu ne wa fatawa cheikh yi ku nekkee seen mufti bu leen doon ibbee mooy iblis di iblis iblis kay comme aate da nga réer de xukumu moo nekkoon seen aate seen fi fial yi seen jëfi da ñi déggtu di làmmutu mis la xabti achiwaay comme déggut aji bémpëng feeku mi ci aate seen fatasala xalkalu li zaaka mislaali ci bila tetal da suma daama topp mu sax min kaxbatillahi tukkee ci kaaba yàlla gi shakwaadi tawat yow yàlla yaa nga ma labal ci sobe évér si yow yàlla yàlla nga ma labal ci sobe évér de moo tax mu ne min saam ngir lor seen fa fajaa dikk na xeyru rijaal gën ci góor da moo tax Mawlana Cheikh Ibrahima mu ne kaabi gi koro ba yent bi saasam doo dafa jëngi jëm day joor jëngi jëm caamuñ ros su am na ñetti fan di fecc bay mu ne kaabe gi mo ew fekk da xam na ne sobbe ak bokale day nañ ci da allahumma salli ala sayyidina muhammad ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم